le 5 février 2023 ca arène nationale Kajoor production moo ñu fa woo Ibrahima Diop nekk ca bopp ba Gris Bordeaux le troisième tigre de Fass le bordelais de Villeneuve Saint-Georges moo war a jàkkaarloo nag ak Ama Balde caatu Fallaye sëll bu ndaw bi borom Ama yaa yëngal Pikine mbokk yi derbi bu ne mës na am ci làmb waaye derbi Fass ak Pikine mooy derbi bi gën a mag looloo waral Ibrahima Diop ak Kajoor production ne làmb ji seen affice point com dong lañu ci wóolu ñoom lañ ciy àndal ñu dugg ci ruq yëg ruqaati war leen Gris Bordeaux war leen Ama Baldé naka la ñuy waajee ba ci biir bés bi ndaxte nag bés bi du bés bu ndaw te bés bu mag la kenn du ko coof Mbaye Dia Diop maa ko fiir te ku leen ñamal Mboor Mbaye Ousmane Ngem Baaw fi lañ jaar waaw waaw mu mel ni kon boo bëggee dégg dëgg daal ah cant gi moom mat na ndax xam naa ne ah wax dëgg yàlla ni ko Modou Moustapha waxee rek Baye ma ñoon dalal si na ko Albouri dalal si na ko mobile dalal si na ko Baye nag defe naa démb ba tey ñu ngi lay gàtte de macha allah mu mel ni Touba ji neex na de ah mais daa mel ni ñaari xar nga lekk tey non ñuy sant yàlla bu baax di julli Seydina Mohamed di sant di gërëm suñuy waajur di kontaan trop macha allah ci déplacement bi mu def jóge ba Dakar ñëw tuubaa ci bisu maam borom Touba bi xam moom muy bis boo xamante ni wax dëgg yàlla julli yëpp kenn ku ne yaa ngi ak sa bopp ñi nga xamante ni ñoo ngi sa toog seen i kër seen xol yëppaa ngi Touba wala ñu ngi julli di ñaan ndax bi su ñaan la bi bisu defaru la xam ma te seen Touba moom dara ndawul wax dëgg yàlla xam nga mooy li ma waxoon démb ci vidéo rek Sénégal li moo ko jëmale kanam këru diine bu xewle rek na ñëpp booloo dem bu ñu xool kii mooy diw kii mooy kee kii mooy kii xam nga loolu mooy tax Sénégal am avancement xam nga te boo xoolee sëñ Touba wax dëgg yàlla Sénégal gépp ñoo ko wala gàcc ngalaamal ndax li yàlla suñu borom defal borom xool moo rek moo koy bañ mais képp ku ëpp jullit am dara ci yàlla wallahi boo bañee boo bañee sëñ Touba dangaa teg sa bakkan wala lu la neex rek mais seen Touba du ku ñuy bañ yaa ngi dégg njabootam du ku nii bañ kon nag yàlla na yàlla soo borom defal ay leer taas nu ci barkeem képp ku déplacé wu foo mën a jóge ci àdduna bi ñëw fi ndax du waa Sénégal la kaa fi ñëw. fu ne la ñu jigéen dafa ñëw màggal si xam nga képp ku fi ñëw yàlla na yàlla faj aajo yëpp yaa ngi dégg ñi fi ñëw génn seen alal def ko fi yaa ngi dégg di gàtt doomu aadama yi ku ci mel tey Modou Moustapha mii xam nga di nit ku baax wax dëgg yàlla ginnaaw yàlla su ma ñëwee fii su ma xamante moom Lamine mi moo tax Lamine ku baax la moom ma ko présenté na nag kilifa gi maa yoo ñooy ànd ñoo koy dalal cinq ans ngi ni ñëw ma Touba maa ngi doog a ñëwaat nii te wax dëgg yàlla mu dem ba ñëwee ba léegi xam nga mu ñuy toppatoo xam nga Babacar yaa ngi fi wax dëgg yàlla xam nga mm. diñu waar diñu teg si yoon diñu wax kan mooy seen Tuuba xam nga mais yàlla yàlla sama boroom jàppale ndax ay jullit lan di kenn ku ne kër diine goo goo goo gis mm-hmm. bu dee ñaari baax sax xam nga fa bu dee tuwaawoon mën naa fa wax ñaari baat yu am solo mm-hmm. su ma duggee Njaasaan fu ma mën a dugg ci àdduna bi ak fu man a doon ci kër gi de mën naa fa waxal yaa ngi dégg ka jiite kër ga ñaari baat mm-hmm. yaa ngi dégg ñun mm-hmm. ñi nga xamante ni ñooy uh, tarixa yeeg mm-hmm. ñëpp benn la nan bàyyi diggante di diggante bi baaxul mm-hmm. ndax li léppay jeex ñun ñëpp dañuy dee bàyyi ko fii wallaahi adduna amul solo sëñ Tuubaa dafa liggéey yàlla suñu borom yàlla fay ka mu ne na ngeen ñëw yéen ñëpp fay gi ma yàlla suñu borom fay ñu ànd ak ngeen santale ma yàlla suñu borom mais li lu ko dax xam nga dèjà maa ngi nii toog ñu dooral ma benn daanaka xaram lu ma la ma tegal manuma ki dara ma <laughs> ñaari xar sax. ngeen ko tege de ko ko naa ñaari xar lañ leen dil ci néeg bi kay. xam nga ñun donc ñoo doon tubaab wax dëgg yàlla mais lii tàmm nañ ko nag man damay kontaan. ndax man yàlla moom moo bind ma nit koo xam te ni dama dama dama dama dama bëgg di joxe ay ñam du joxe. moo tax ba mu ñëwee fi ba léegi ma gisee Modou Moustapha ni muy gàttu affaire ñëw di bëgg nit ñi rek du joxe man sama xol day sedd billaahi wallaahi dama ci gis sam bopp ci li muy def kon yàlla na yàlla soo borom ar yàlla sàmm ko moom njabootam boo liggéey yàlla may ka lu duubul lum def tey jii ba ñun ñëpp tamit yàlla bàyyi ñu fi ngay bay gën a àdduna ñu fi ñun ko comme nii dalalaat ko xam nga ci barke Seydina Mohamed. mais Baye yaa ngi ñaq rek de forme bi. non forme non non du ma fenn de man du ma fenn dëgg yàlla ma jógee suma ko ba léegi nii su ma la waxee entraînement naa benn fan saal dara non damay jékki-jékki rek daw yi ñëwaat mais dugguma saal def ma dara wax dëgg yàlla jékki-jékki dem daw yi tàng yaram mi ñëwaat quoi dafa am ci lu ma ne. fan yi nii quoi. mais suma la waxee nag instant maa ngi dugg saal di comme li gars yi def di dem ak ñëw noonu. def ma waaw waaw géej waaw dem dem dem daw daw ñëwaat ay physique physique mais mais pas pas entraînement ma carrément lii nag Touba moo tàng. Touba tàng non du état de barke Rosso laay tàngaay Touba ba mbër. da sama da ngay génn salle de bi génn. mi yaay ma yaay tooy xib. man moom ñàkku ma moom. man bàyyi tooy waay bëri yéen a yéen a gën a xam ne man mën na ci faru ma du waaye yaa ma gën a xam ah waaw nekkuma ci faru barke Rosso laay waaye tubaa neex rek. lan la loo xam xew koy yor. mbër man yotuma kenn dañu sant yàlla suñu borom fii làmb anduñu fii. waaw ah, wax ci sëñ Touba li ko yàlla suñu borom defal. mu kontaan si di bernal nit ñi. nit ñi kontaan. yaa ngi dégg mbëri làmb yi nag yàlla yàlla jàppale yàlla aar leen ñoom ñëpp ci barki Seydina Mohamed. ñi fi màggal si ñëpp yàlla ñu yàlla yóbbuwaat si jàmm asalaam suñuy njaboot yaa ngi dégg ñu ñaanal làmb ji yàlla suñu borom teg ci loxo ndax reporter yi am ci xaalis journaliste yi am ci xaalis yaa ngi dégg amateur ak képp ku ci yàlla suñu borom boole ndax ñun ñoo bokk liggéey wax dëgg yàlla yàlla moo nu boole mais kon yàlla na yàlla soo borom jàmmal Sénégal bu baax a baax a baax a baax député yi xaw may député lan xaw ma lu mu doon fan yi sonal nañ Sénégalais yi wax dëgg yàlla waaw parce que dafa am solo ndax bu dee ñaari baas sax yaa ngi dégg am na am na am na koo xam ne day déglu Baye Mandione am na koo xam yoonu new ci yaa ngi dégg mais ñoom tey assemblée ñun lañ fi nekkal ñun askanu Sénégal mais vraiment jëf juñ jëf ci semaine bi ñaaw na trop wax dëgg yàlla ay kilifa nekk fa war a taxaw ci assemblée ñu xool lan mooy suxa suxal li Sénégal jëme ko kanam ñu dafa di sànninte ay sëy di këfi ay kees ak di di di sàggante di sànninte ay ay dàll loolu dafa ñaaw ñooñu man li may wax ni ñu ñi ma gis ñu def espace bi pour le moment ñooñu du exemple. boobu nan ma mere non non gis exemple parce que tey ñun ñun ñii tey yaa ngi dégg de. làmb ji foofu tudd ñu làmb violence violence violence mais ñun bëri làmb yi dafagun loolu ñu ngi dajaloogun fenn ñun bëri làmb yi suñu biir di xeex may sànni Modou Lo xeer wala Modou Lo di ma sànni xeer wala muy sànni jiri wala Bombardier wala Masin wala Balla Gaye ñu ñu sànnit ay ay ay ay bantaak ay ay biteel dafagun ko suñu biir ñun waaw kay jaxaseegun bureau encore kon nag ñoom ñi ne ensemble nan ñu bàyyi xel yaa ngi jàpp ne kon ñoom dañoo matut ay député wala dañoo la tax ñu yóbbu leen foofu ma la wax bari na ñu fa nekk barko Rasulullaay seen poos moo leen fa yóbbu salaire bi leen di oto yi leen di jox ñu dem seen kër mais seen yoon new ci askan wi na naan leen jox oto bu rafet jox leen salaire ñu am seen condition yi a ñëpp nag doon ñoom coow lañ fa nekkoon nag waa pouvoir bi waa opposition bi ku nekk coono ne askan wi mi tax a jóg nga ne suñ taxu leen a jóg waaye ba ba càppaandaw ga lu golo xam boo ci doomam lan def nan nan maa ko woon muy yeewi ak kan ci xaw ma no wàllu nu tudd wàllu moom ñu ànd àndoon waaw Benno Bokk Yaakaar ànd Macky Sall maa Benno Benno Bokk Yaakaar mooy Macky Sall waaw waaw wàllu mooy ñoom Sonko mais kenn ñoom Ablaye Wade ñuy wuti mais ñoom ñëpp laa la wax muy opposition opposition ba pouvoir baax ci bokkayam mais exemple bu ñu joxee moom assemblée man nag du ma dara doomu aadama laa teguma sama bopp fenn du ma dara mooy la moo sànq bu dee benn nit am nag benn dañ boo ngi dégg de te benn nit boobu ma dégloo mën na kaa wax keneen ak keneen nañ ko dimbali ngir yàlla dëkk bi métti na billaahi wallaahi tallaahi métti na ba fa métti yem tey war noo fayee askan wi lu dem ensemble na fa loolu du ma def loolu man kenn xamul lu mu doon ñooñu dañoo a jox kenn benn exemple loolu kenn xamul lan man Sénégal lan ne loolu après ñoom bu ñu kiifee sax ba commencé liggéey ñoom bu ñu xoolantee seen biir duñ rus imagine loolu parce que maa ngi déglu waa jooju mu tudd kii Fall mu naan mu ne bu léegi bu xale yi xeex ci mbedd la xaw ma ko nag dama koy gis ci télé bi. mooy Pape Djibril Fall. Pape Djibril Fall la tudd dama koy gis mais message boobu mu jàllale am na solo mu ne tey ñoom ñoo a exemple mu ne exemple bu ba ba tey li a metti mu nekk di seetaan Sénégal ñu doxale dem ba dem ba gendarmerie ak ñëpp dugg ci biir assemblée bi. mais kenn xamatul Sénégal ban Sénégal la ne quoi nga daal yàlla na yàlla yàlla nañu fi yàlla suñu borom bàyyi am dépasse yaa ngi dégg di dimbalante suñu biir am jàmm am salaam ñoom politiciens yi seen a gàngoor nag yaa ngi dégg ñi nga xamante ni bëgguñu jàmm bëgguñu defee Sénégal ñu tege leen ne le bakar ak yàlla duñ may yaa ngi dégg ñun ñëpp taw feex loolu mooy problème bi waaw waxewu ma rek opposition waxewu ma pouvoir mais nañu dimbali ngir yàlla jàppale nan nan ñu jàppale danoo sonn quoi vraiment billaahi pour war war a defal dëkk bi war defaratul dëkk bi ne fi l'histoire pourquoi ah ah man man man déggal ma la wax man du ma raayal kenn ginnaawam président Macky la mooy président Sénégal kenn ñi ma la waat ne liggéeyul Abdoulaye Wade jaar na fi kenn ñi ma la waat ne Abdoulaye liggéeyul yaa ngi mais keneen kii ñëwaat ki fi yàlla tege tamit tamit yaa ngi dégg bu ñëwaatee moom mooy gën a mitil Abdoulaye Wade mooy gën a mitil Macky Sall Sénégal nii lay mel ba kar àdduna tukki moo la tey tey ñi ànd ak yow di bu ñu ànd ak Macky Sall tey ku bàyyi Macky Sall yaa ngi dem tey boobu boobu ñaan daay opposition ku ku mere waa opposition te ngay daw laxaru ju Macky Sall waaye ñun ma réew la nekk. kon ah, mais doy na ah, mais daal xam nga ah, bër na. am seen bopp lañ fi neel xanaa. waaye màggal gi waaye bàyyi leen foofu ñu waaw kon baax na. ñaata nga lekk waaw waaw ja. waaye fii ñaata xar la ñu fii ñëpp lan berne. dëgg jàmbaar. xar yu bari de dégg. bëri fii ñu ñëpp lan berne ñun tàmm nañ lii. waaw sëñ Tuubaa nag yàlla na ko yàlla soo borom yàlla fi yàgg si Tuubaa yàlla fi yàgg te wér. <laughs> mu ngi baax kon mbokk ñu ngi leen di bëgg bu baax baax di leen ziar leen ñaanal jàmm ku ne xam ne nag. tey mooy 18 safar ah, tey le 18 safar ñuy nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñuy bàyyi xel wala nga di ñu topp ñu nekk fi nga xam ne ni nag moom mooy Touba gaar bu ndaw du noonu la tudd wala gaar bu mag ah. gaar bu ndaw ah mu tombeeg jeudi 15 septembre 2022 ah ñu nekk kër ku ñuy wax nag Modou Moustapha Modou Moustapha defe naa Modou Moustapha Bey la wala du noonu. Modou Moustapha. Sarr booy Sarr. Sarr Sarr booy yow yow booy yow takk nga ci mbir mi de. Sarr la. waaw Sarr lañ sant Sarr. da nga cee takk rip de. waaw ñu ngi nii de. ah ak Miss wi. Miss wi waaw waaw ah, préparé xoolal. waaw Giraam. waaw. si ngoom. waaw jeex na tax. yow de xanaa war nga mën a lekk mennum xar. mennum xar bu day bëri si man damay fër. waaw. yow yow Sarr nga sant. Sarr laa sant. fii ñëpp saar lañ sant moo doon tuddee mooy Kër Saari Saari. neex na Kër Saari Saari. Adja maa ngi lay se. Adja kaay nii kaay. bëgg naa la soxna. madame nan la. madame Fall. madame Fall ah. waaw. Uh-huh. mbir yi daa mel ni affaire yi ngeen ko defaree kii na de xéwale na de. maa la ko wax sama tante safar. yéen yéenay waa waañ wi. sëñ Touba rek ñu ñor leneen lu mu amul bëgguñu ko jeex na. waaw di ñaan sunu papa yi ñu gudd fan wér yokku xéewal gi baree baree baree bare luñ ci def ren jii bu déwénee yàlla nañ ci def leneen lu ko ëpp ci baaka Cheikhul Khadim amin ana Moussa kan moo ci musa Moussa kaay Modou kaay sëñ Modou kaay ah kan la kii ah kii kaay yaay booy yaay booy kaay yaay booy xanaa maa ngi lay ziar. yàlla yàlla nu ngi ziar tur bi nan la. Seyna bu jiite waaw madame Sary yaay yaayu xale yi. maa ngi seen yaay waaye Modou mi dafa baax. ba maa ngi ba mu at mi commencé rek la commencé. di préparer li jëm déwén lu nu wax mu nu doyul lu nu wax rek mu nu doyul. yàlla na ko sëñ bi fay yokkuwee ko ba mel ni jumaa ja ku koy xaar yàlla nga xaaj ji barke sëñ Fallou kenn du moom lu nu teg mu nu doyul fanweeri xar maa la wax lii ñeent fukki koppin juróom benn fukki ginaar démb ak tey tey lii bokku ko ci kenn du moom fruit yi nag kenn mënu la ko wax ak ndox mi lépp jàmm moom daal li koy ñaanal nañ koy dégg ca kaw rek na mel ni sooroor ba rek ñu koy dégg ca kaw ci barke Sëñ Fall. amiin waay Modou Modou ah loo bëgg a wax waaw abal ko lum teg ci bopp bi voilà loo bëgg a wax. ñëwoon sama dal damaa ñëwoon tey sama dal ma ñëw dal bi may ñëw fekk ndox mi jël seen kii bi ba ma ñëwee laa ñëw fekk mu toog fii ma jóge dem di wëri ji. mu ne ma ñëw dem ba ñëw gisuma leen ma ñëwaat fii fii balaa maa ñëw fekk naa mu lala xale yi basan daal leen lala ne leen toog leen maa ngi fi doog a ñëw si dal bi wax dëgg yàlla macha allah dëgg yàlla li mu mën ren bu déwee ne yàlla na yokk yàlla na ko yàlla defal jàmm ak gudd fan dëgg yàlla borom baax la macha allah. xéewal yi xéewal yi ñuy dund nii ci màggalu Tuubaa gi ku koy dund di nekk ab taalibe wala nga nekk saxub jullit parce que ñëpp si bokk. lan nga war a delloo njukkal Serigne Touba loolu daa diis Modou Kaay waaw loolu diis na xëy na Modou dina mën a tekki loolu sëñ Modou ñu ngi lay ni ñu ngi delloo ziar bu baax a baax. maam nga jaam. sant nañ bu wér. Ah, waaw defe naa ne dégg nga ni fi ni ñu wax de màggal gi dinañ daal ah, waslu nga ci ak def nga ci li nga ci war a def ba xéwal yaa ngi nii depuis boobu ba tey moodu waaw ñun xam nga boo nee Modou Moustapha jeexal nay wax. nga waxaat nga ne entreprise waa kër Xaadim Rasool jeexal nay wax sëñ waa moo ñu ko jox dañ koy delloo ci bisum bi rek mënuñu ko fay mais nag particulièrement di gërëm sama xarit yi quoi ba ci yéen mi ñëpp ak sama xarit yi xam nga tey ji oto yi bari na mën na nonoo dal fu nekk bàyyi ñëpp ñëw dal man vraiment sant naa baax lekk du dara foo dem am na fa mais li gën a rafet mooy déplacé wu taal sa oto ñëw ba bàyyi kër yëpp ñëw dalal la loolu moo gën a foor lépp waaw loolu moom lii nii lekk yi ak benn yi du dara mais obligatoire si ñun nag ndax ñun sëñ Tuubaa moo ñu ko digal te ñun lépp lu am sëñ moo ko moom alalu sëñ Tuubaa leen suñu bakkan bi sax instant yi bu ko sëñ Tuubaa laajoon ñu jox ko waaw euh, bakkan bi bu ko laaj ñu jox ñu joxe ko loolu la yàlla dogal waaye kon dinaa la laaj tamit maanaam tey sëriñ Tuubaa lan lan ko war a mën a delloo njukkal wara a ban taxawaay la taalibe yi war a mën a am rawatina nag ñi dëkk fii ci biir Touba. nekk ay taalibe rek di jëfe ndigal bàyyi tere di déglu sëñ Muntaxa am na lu ma fàtte nag maa ngi gërëm sama xarit sama sëriñ sëñ Bass Abdou Khadre waaw sëñ Bass Abdou Khadre teraanga yi yëpp ay sant yi xëy na daa nekk ci ginnaaw rek mais lépp moom la barke sëñ Tuubaa lépp lépp lépp moom la maa ngi koy gërëm bu baax a baax te man maa waroon a yëkkati sama xaalis di ko jox mais moom mooy yëkkati xaalisam ne ma defal ci biir sëñ Tuubaa bi yii nii yëpp moom la teraanga particulièrement maa ngi koy sant di ko gërëm waaw di ko gën a yaakaar di ko gën a dénk sama bopp te xam ne amu ma dara lu dul moom euh, looy wax tey mbokk yi parce que même kër gi gis naa fi tamit ay mbër gis naa fi Baye Mandione gis naa fi mobile gis naa fi benn promoteur bu ñuy wax Fouta xam nga ah bëri Albouri tam gis naa ko fi waa làmb ñëw nañ ñun ñi loolu bokk na ci li gën a tax sax ah waaw te yow mbokk góor a soog nga dégg naa tamit ah sa digganteeg ñooñu. waaw ñooñu moom maa ngi gërëm Lamine. ndax sama xamanteeg baa ma ñoon ci Lamine la jógee. ndax Lamine dafa am benn réunion bu mu amoon ak moom. mu ne ko man damaa bëgg télé damaa bëgg nga wan ma fu ñuy jaay télé mu am na sama buy jaay télé. mu ñëw ñu jaay ko benn télé 400000. mooy mu nekk ku oyof. waaw waaw bàyyi ma ñoon après ñuy essence essence nii. keroog moom message ko ne ko Baye Mandione su ma sañoon nga ñëw Touba màggal si mu ne ma amul benn problème des na ci yow gëj naa màggal si mais yow boo ko sàkkoo si man ma ñëw mooy maa ngi koy sant di ko gërëm di ko jaarale ci Lamine Lamine sama xarit la sama lépp la wax dëgg yàlla moom it te ànd bi rafet na wax dëgg yàlla booba léegi réccu ma si dara ndax ñu bëree bëri la may booleel damay booleeg ay ñoo xam ne ay clients yu baree bëri jënd ci man centaine ay millions yu bëree bëri xolam moo rafet te a na ko cee bañ a fekk waaw comme gis mu soxla lu mel noonu rek danaa la man benn xarit la am mooy Modou Moustapha demal ci moom mu jaay la mais yow maa lay sant di la gërëm xëy na yàgg naa laa xam euh, mais gise bi tey la quoi tey la ko yàlla dogal voilà Alboury tam gis naa ko fi mbër mu saf xorom waaw Alboury moom sama xarit la waaw Alboury sama xarit la particulièrement maa ngi sant Ardo aussi xam nga moom ak Ardo ñoo bokk koñ waaw moom Ardo presque moom dix ans ngi nii fii lay dal waaw ren mu ne léegi il faut ma indi la Alboury ma ne ko loolu moom dama ci kontaan bu baax a baax après mu ñëw indi ko fii gërëm ñoom mobile gërëm ñëpp daal su ma limee day ma juum nag di gërëm samay mag waaw maa ngi gërëm samay mag bu baax a baax waaw ñoom sax laa war na jiital ci ngërëm li mais xay na xel day fattu mais maa ngi leen di gërëm bu baax te xam ne man duma dara lépp ñoom la ñoom ñoo nekk si ginnaaw ñoom la ñoom la rek se que dañuy gis jëmm ji mu jiitu rek mais ñoom la ñoom la lépp lii nii yëpp moom la voilà. waaw lu mos a lekk di man de loolu ma lekk di xuma lan la sax dégg nga lan la nu mu tuddati. ah dend yi ah waaw na xam nga ñun bis. bis dend xanaa xeetu ginaar la. bis sëñ Tuubaa moom bu rey nit na sax dañ koy def lépp loo xam ne bi ne sëñ bëgg na rek dañ koy rey te incha allahu rabbi kanam la jëm bu déwénee buñ ci defoon fukk. daan ci def fanweer incha allah. amiin amiin kontaan si yow. waaw jërëjëf waay jaajëf jaajëf.